jaar soxna maam jaar ziar tey soxna maam jaar nga tudd daa yaa yaa ngi ci ndogu yi maa ngi ci ndogu bi ndogu laay bi tey laa yaay borom baax bi mhm. borom jigéen yi macha allah di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram parce que moom ku baax la waaw dëgg loolu am na solo xewal gi yokk ah ak yore ah loo yow yow mi ci kaw asu loo wax waxal fii Touré am na loo cax cax caxabal foofu de. balaa déwén ñoo ngi ñaan yàlla balaa déwén mu am lu ëpp lii lu mu ko defee. yàlla mun na ko te yàlla dina ko ko mën. incha nit ku baax. xolam dafa rafet. lu mu gis yéene ko ñëpp. bu baax bëgg lu baax yéene wu kenn lu bon. waaw kontaan naa ci sama jëkkër jooju. fes la ñu defal nit ñi gis nii. koñ bi yëpp lay trans hôtes korité bu jotee wala tabaski ñun ñëpp korité dañuy defal ay vaal. yéen nit ku ci nekk dangay ñaw ba desal bilaay ñëppay otes laay dafa bu yaru la bu am solo moo waral tey ñu bàyyi ko dañoo daw joobi nag laay jar na ko laay jar na ko waaw man la man soxna maam jaara soxna maam jaara jala bi dana yëpp ko jaaxal de ak wér ak wér ne bilaay mhm. bilaay dafa baax mhm. waaw ñëpp la yemale boo la jigéen na nga Mm-hmm. kon yaa mm-hmm. rabbal alamin si daaw <laughs> kon ren du ma ta wax ñii sant yàlla nag bi julli ci yonent bi sallallahu alayhi ndax kenn gënu leen ñi ñëw di animé la ay ci lu mel nii ñaan yàlla nag ñu di ko def ati ak ay at te moom li mu ci bëgg moo ko xam yal na ko yàlla ak borom Tuubaa defal liggéeyi ndeyam ak barke baayam yal na ko xol macha allah ak waa koñ bi nga xam ne jàmm rek la si seqal ñoom laay na yéen na tey na kenn yére ya muy jaay sax du ko boole kenn wax ma la ak dërëmam kon nag yàlla dolli jàmmam waaw allah allah Kan <laughs> yaay kon de dara lu ci def laay de ma jël rek yaayalee ma boppam bëgg ma laay moom amul noonu kon bi yëpp allah hmm. dañ koy di basket. sant ñaanal yàlla yàlla ko yàlla yokk ñu si waru tuuba yàlla ay ndayam fan ay baayam ay dese barke bi yàlla mën na ko yàlla na def borom baax na amul fooree jàmm ak salaam ku ci am sa problème boo ko keneen bi dégg billaahi wallaahi ku ne da foog ne laay yow la féetee ndax baax na gis ci moom te du du ren du te yàgg nañu waaw. lii muy lii muy ndogu yi. moom yàgg na bañ koy def foog naa ne ci juróom-ñaari mburu la njëkkee te yàlla nga koy yokk ndax ñu ngi daaw defoon na ñaari cin. defuñ fi dara ren def nañ ñaari def nañ ay mburu ak sandwichu ginaar ak yëpp ba na lañ teg te cin bu ndaw lañ daan teg. waaw macha allah. yal na ko yàlla yokk ba ñu yëg ko ba ñu yëg ko ñu yëg ko ndax su ko yàlla yokkee rek dinañ ko yëg dinañ dina ko yëg yàlla jërëjëf kon di seen seen caali seen caali dem seen dëkk fii ci koñ bi hmm. dëkk ak Ablaye hmm. Ablaye ñu koy ñaanal yàlla rek ndax ndawalu guddi la ku njëkk a dugal sa loxo rek da ngay fane yow rek yaa yaa yaay daj hmm. Ablaye bi mu dëkkee fii ci koñ ba tey nii lay def baax bu bëgg a dee lii muy def nii. Mm. dañ koy ñaanal yàlla mu yàgg koo def. Mm. man marché assurance laa ko gën a miin nag ma sama rakk ñoo jàkkaarloo palaas. Mm. di fa saa yi ma ko fa fekkee muy ñoo bokk benn koñ bu ñu ñibbisi waaye day yëkkati paas ne ma am ba pare yëkkatiwaat sama paas joxaat sama rakk ne ko am paasal. saa yi buy def lii daf ma ko wax mais da daan daa daaw ma woo fii. loolu moo tax ren jii ma ne naa ñëw barkeel bi su ma ma tar dagg sama activité yëpp toog fii. soo ba léegi. di koy ñaanal yàlla na mu yàgg koo mën yàlla na ko yàlla may kattan ak wér ci barke Seydina Mohamed ci barke koor gi mu yàgg koo mën yàlla defal ko jàmm tànqamluwul dara ci koñ bi tànqamluwul dara ci koñ bi xale bu baax bu yarul toxul naanul dugg ci yoonam nekkul bañ na ko bu koñ bi bëree coow sax day génn dem ba ca bi fee ci côté dibiteri bi naan ma yaay gis nga fii ma toog bugguma benn buri ndax bugguma sax ñu may limaali buggul benn buri buggul benn caaxaan bugg ci lenn lu ñàkk fayda nag ba ma ko xamee ci koñ bi ba léegi ñu koy ñaanal yàlla bësam bi yàlla na ko def ay téeméeri téeméeri at yàlla kattanal ko may ko wér may ko ay waajuram ñi fi nekk ñëpp ñu leen di ñaanal yàlla may leen kattan bi ñu koy defee ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla ngeen fi yàgg a ñëw di teewe di ko def ci kattanu yàlla yàlla na leen yàlla defal jàmm ci